himmata cheikh ihbiri lana bi hada almabadi wal taatifi bi nazratin taati lana safar wàccal benn maa ngi xaar xaar mu yàlla njëkk di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di itam ci li ñu yàlla may ñu fekkee ko ren di ñaan ñu fekkee koy at yu bare bari ñu ngi gisee ne foole yu bëri dañoo lay gàmm mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ray na xar te dafay ngéntuwaat boppam te ku ne xam na ne ngénte euh, duñ ko dafay tegtal ne feete feete na bésam bés bu mu juddoo ba léegi foo day waxaat ne nit woor na bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko tey feet la kenn du ci woor ñaari lay yooyu la foo day indi ngir wane ne gàmmo biddaa sunna la bàyyi nag ne man damay dem indi lay ci yaxab alquran ndax yàlla dafa wax ne wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli maa nusaddiqu bi fuaadaka yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko danaa la nettali xibaaru yonent yàlla jiitu woon ndax loolu dana dëgëral sa xol ci gëm waaye nag ne su fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñ ko nettalee xibaaru yonent yi jiitu woon dana dëgëral xolam ci gëm yàlla mu ne kon ñun itam ñu ngi nettalee xibaaru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu dana dëgëral ci gëm yàlla kon biñ gisee lay yooyu koo dee indi bi bàyyi indi jëlee ko jeexam alquran mu doon ay lay yu dëgër a ñu xam ne lii nga xam ne moo ñu tax a jóg ngir ñëw màggal juddub yonent bi sallallahu alayhi wa bu leer lañ ko teg te itam sunna la bu am solo seet si ko pour matal ci sunna boobu ci suñu bunt mooy Maolana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ñu gis itam ne nit ñi jógee nañ ci ay barab yu fasanti ko képp koo xam ne da nga ñëw fii Medina jëmm Maolana Cheikh Ibrahim yëkkatil ganu Maolana Cheikh Ibrahim ku ne xam ne ne ganu Maolana Cheikh Ibrahim ganu yàlla jaamu yàlla dafa am sow ñu sant yàlla bu baax a baax ci bi ñu yàlla dimbale ba amuñu benn gàllankoor ñu ñëw teefu ci jàmm ci suñu buntu wasila di sant yàlla itam ci bi nga xamee ne suñu wasila bëgg nañ ko mbëggeel bu nañ ko fonkeel bu dafa mënul ñàkk yàlla moom moo wax ne yaa ay ladina amoo taqulaa wattaqu ilay wasilat mu ne day yéen gëm yi ragal yàlla te sàkku leen lu leen jegeñal yàlla yàlla moo santaane dinañ ko wasil yàlla itam wax na ne tabir sabila mag naa bi ñu tey soo bëggee dellu ci yàlla toppal yoon yi nga xam ne moom dellu na ci yàlla moom dafay tegtalee ne wasiila lu am solo la yàlla wax na itam ne wasbir nafsaka ma'a allaziina yad'uuna rabbahum bil ghadaati wal ashiyyi yuriiduuna wajhahu gaaral sa bopp ba bokk ci nguuru yàlla yi nga xam ne dañuy bëgg seen borom suba ak ngoon te jubluwuñ ci lu may jëm ndax bàyyi ci njàngaleem ne jaam yi ñaar xam ne dañuy jaamu yàlla ngir ragal safara ak ñoo xam dañuy jaamu yàlla ngir jëmm wëllu yu na leen bokk ci ñuy jaamu yàlla ngir jëmm boo seetee ku mel ni Rabia dafa téye si wa dox matt safara di dem ñu ne ko waaw safara si nag mu ne damay dem fay damay dem taali ji aljana xam ne kenn dootul jaamu yàlla ngir aljana mu ne ko si ndox bi nag mu ne damay dem damay safara pour nga xam ne kenn dootul jaamu yàlla ngir safara ngir ñu jaamu yàlla ngir jëmmam kese moo tax bàyyi na ñiy jaamu yàlla ngir bëgg a mucc ci safara mu ne baax nañ mu ne waaye nag ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla ngir jëmmam mu ne ñooñu ñoo gën te terewul nee na li ñële am ñi jaamu yàlla ngir jëmmam danañ ko am ndax dafa ne nguuru aljana moom ku gën a xam yàlla rek mu ne yow yaay ëpp nguur te biñ gisee ne nit su fekkee jëmm jëmm nit amul roowu ñi gën a bëgg waajooju ñoo koy jàpp gaaw suul ko balaa mu yàq seen loxo su fekkee jëmm am na ruux waaye amut xel kooku dafay nekk ndox buy dóoraate ba ñi ko gën a bëgg ñoo koy jàpp yeew ko su fekkee nit ki am na jëmm am ruuxu am xel te xamul yàlla dafay nekk ku matadi ba tax na ruuxu jëmm ruuxu mooy ruuxu jëmm xel mooy ruuxu ruuxu xam yàlla mooy ruuxu xel ba tax na xam yàlla mooy ruuxu ruuxu moo tax xam yàlla dafa am solo di la xamal yàlla nag moom foog nga matal foog nga sopp ko foog nga bëgg loolu tax ñu bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim te ginnaaw yàlla ak yonent ginnaaw yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa ñun yemalewuñ ko ak dara yemalewuñ ko ak dara dañuy fonk Cheikh Ibrahim dañ koy gën a bëgg te dañ koy gën a topp ndax yéen gis ngeen ne mbooloo mi yokk na ab doole te at mu jot dafay yokk ab doole kon ñoom foog ñu sopp leen wasila bi foog ñu sopp ko foog ñu bëgg ko foog ñu topp ko parce que wasila bi wasila bi day ki nga xam ne moo la xamal yàlla téye la ci loxo yóbbu la ba ci yàlla kooku loo ko mënta defal jàpp na rek feew kooku amal nga ko bor boo xam ne mënatoo ko ko fay ci àdduna bàyyi mi ñu xamal indi xam yàlla xamal ñu yàlla dañ ko ameel bor boo xam ne mënuñ ko ko fay ci àdduna mënatuñ ko ko fay comme nag mënuñ ko ko fay dañ koy sant def lépp suñ kémta lay kàttan di ko liggéey su ngoon guddi bëccëg mu ngi ñaax suñu bopp di ñaax ci ci rafetal wax lu rafet wàññi nit ki dara du ko yàqal dara jëf ju rafet wàññi nit ki dara du ko yàqal wax wax ju ñaaw mënul tere lu yàlla dogal ci nit ki am bu nit ki waree yokk wax ju ñaaw mënu ko wàññi nit li yàlla tudd ne mooy wërsëgam wax ju ñaaw mënu ko wàññi nit ki li mu war a am rek lay am te li ko yàlla def rek lay doon te loolu kenn mënu ci dara moo tax may ñaan yàlla rek yàlla may ñu tawfeex ak jullit yëpp xëy na ci wax lu rafet ak def lu rafet dafa am benn góor yàlla bu mag ñaari ñaari ñaari ñaari nit dañ ko seet si moom wulli yàlla bu mag boobu kenn ki ci jëkk a ñëw dafa nekk rafet rafet bi mu wulli yàlla bi ne ko yow li ma lay digal comme yow da nga rafet bul def lu ñaaw ndax lu ñaaw dëppoot ak sa rafetaay bi dangay def lu rafet ndax mu moo dëppoog sa rafetaay bi lu ñaaw dëppoot ak sa rafetaay bi da ko demal kooku dem beneen jaamu yàlla egsi mu ko digal ma wala yàlla mi ne ko yow comme yow da ngaa ñaaw bul def lu ñaaw di ko yokk si sa ñaawaay comme da nga ñaaw da ngay def lu rafet ndax mu jàngal la sa ñaawaay comme nag ñun ñoo ñi ñaaw ñun jaamu yàlla yàlla mooy ki rafet kon buñ def lu ñaaw bi ko yokk si suñ ñaawaay nañ def lu rafet ndax mu jàngal ñu suñu ñaawaay yi ñu ngi yàlla mu nangul ñu suñu gàmmu gàmmu gi ñu teewe ko ay at yu bare bari lépp ñu fiy séddale ci ngërmaande ak ci yokkute yàlla ñu fi yàlla jox bu bari ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma leen di gërëm bu baax yéen waa presse bi di rafetlu seen taxawaay di ñaan yàlla barkeel leen barkeel seen liggéey asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf bi sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant sama doom yi muy doomi ndey Mariam Sall yi jëlee ko ci Lamine jaar ci Cheikha jaar ci Cheikh Mamour ba ci suuf ñoom ñëpp maa ngi leen di sant waaye tey bés bii euh, Cheikh Mamour laa gungee si maa ngi koy gërëm di ko man képp képp ku ko ku mën a seede ci moom man defe naa waruma ci jiitu ndax gannaaw bi ma ko juree dama dëkk ak moom presque dix ans xale mi yoroon yëpp moo ci gën musul jaar ci ndaw musul baali musul tux musul def dara ñi ko mag la dëkkaloon moo ci gënoon nekk xale waaye moo ci gënoon a baax moo ci gënoon a jub maandu di wax dëgg maa ngi koy gërëm di ko sant gannaaw loolu bi mu wootee ba pare macha allah alhamdulilah nit ñi wuyu si ko lu dul dëgg du yàgg ndax lii ku ko gis xam ne plus de vingt ans dëgg rek moo mën a mel nii maa ngi koy gërëm du ma su ma bëggee wax ci Cheikh Mamour dama fi lay fanaan wala wax ci doomi Ndeye Sall yi dalee ko ci Lamine jaar ci Cheikh ba ci suuf ba ci Zakira mi caat euh, euh, man de teg nañ ñu sama teg nañ ma teg nañ ma sama place teg sama mag Sagar Sall place am Cheikh da dañ dama fi feebar feebar yu metti Cheikh a ngi ni mën na ma seede ñu jël téléphone woo ma ne ma kaay kaay sama kër woo naa cardiologue bi nee naa ko sama yaay moo feebar ma dem këram. bi ma demee bugguma jooy bi ma demee kii moo ma teeru boog Zakira mu yóbbu ñu mu yóbbu ma ci sama suite ma nekk foofu le lendemain mu def chauffeur bi sama disposition yóbbu ma ci cardiologue bi cardiologue bi lim ma defal keroog lii Cheikh Mamour fay xaw ma nu mu toll ci ëllëg sa ñu ne naa def analyse laboratoire bi la woo mu ne doo dem laboratoire bi moo ñëw ba këram mm-hmm. bi mu ñëwee mu fay xaalis bu bari ñu defal ba analyse mu teewaan ma ci jënd garab yi li mu dépensé ci man xaw ma nu mu toll yëkkati enveloppe bu rëy jox ma traiteur moom ma doon toggal ma nekk ci suite traiteur bi mu ne ma loo bëgg rek moom ci boppam moo ñëw ba si néeg bi dirigé ma loo bëgg wax ko loo bëgg nañ la toggal loo bëgg wax ko téléphone ba moom moom moom moo ma moo ma recevoir daal man maa ngi koy ñaanal di ko ñaanal wér a gudd fa dem sutura li mu mën ren yàlla na mën lu ko ëpp déwét fu mu toll daf may jox xaalis jooyu ma benn yoon am naa taxaw alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah maa ngi koy ñaanal wér ak gudd fan ak sutura di ñaanal mboolem doomi ndey Mariam Sall